boobu dafa am benn déclaration wala euh, communiqué de presse boo xam ne dafa génnoon di wax que ni Ousmane Sonko xalif bi dafa wax ne mu ngi ciy teg tànkam ci li nga xam ne moo di ziyaara bi. waaw loolu dama ci dama ci sawar leeral lool leeral gi nag ma bëggoon sénégalais yi déglu ma ñu am xel mbir mu ne fa jotagul doo ko waxee démb la fi presse yu bari ñëw ne ma daf ci déclaration may leen déedéet togg ca bam ñore bu ñoree it fa muy neexee mooy yàkk nit ñi mën koo lekk. ñu ne moom loolu mooy lan may leen ba suba ak jàmm ba Ousmane ñëw ba dem ndax dana ñëw ma leen xanaa damaa lekkul lew na man tànkam maa ngi fi dana fi teg tànkam incha allah amul ku ko fi mën a teree ñëw parce que it yàlla dafa dogal kër ndaw ñoo koy doxal mag ñi seen wàll jeex na wéy na kër nag boo amee ay ndaw am nga kër gi yëpp Ousmane loolu ko yàlla dénk mooy lew na bu ñu dee cent personnes lañ vingt quinze pour cent yëpp Ousmane Sonko lañ adhéré wu tamit jënd ay carte nekk comme ay membre ba pare nag terewut seen cëru sëriñ ñu ngi ko yor ba tey fi may leeralee foofu nag mooy dafa am lu fi xew fii ci Léona Niassène li fi xew ñëpp xam nañ ko mooy président Ousmane Sonko dafa waroon a ñëw ziare annuel bu Léona Niassène kër maam Khalifa Niass 2023 ziare boobu nag bi mu waree ñëw moom Ousmane Sonko fi mu jaar lañ leen nettali delluñ ko wax ngeen teewlu dafa am ku ñuy wax Alhaaji Niass di taaw ci xalifa bi alaaji moomu yàlla dogal li ci ëpp bi papam toogagul xalifa kenn xamu ko ñu seen bi papam toogee xalif général la ko ñu la ñu bëri soog di xam kon pays bi dafay rekk reconnaître ki nga xam ne xam na ko démb tey soog di ñëw ñun nag ci loolu lañ fas yéene di wéy mooy dañoo xam démb njëkk tey suñu alal di ko fekkee suñu ñaq di ko fekkee suñu kàttan di ko fekkee ñu liggéeyal suñu maam kon tey bu ñëwee mbiru politique war ta yàq yenn détails yoo xam ne nii mooy indi détails yu ñàkk fayda alxaaji moomu di taawu xalif bi ñu contacté wax man ak moom fiche fichier bi danaa leen ko jox yéen ñëpp su ma paree lii may wax ngeen dugal ko muy témoignage wax ji may wax mu yónnee ma invitation boo xam ne daf koo adressé ci tur Ousmane Sonko fekk bi ñu waxtaanee def na ma sama place wala sama kër ak kër Ousmane Sonko si te kër góor gi soreewul ma bëgg faa dem yóbbul ko ko ma ne ko góoma boo fa demee it ñu recevoir la mu ne ma ah ndax lan ma ne ko Ousmane dafa am nu muy doxee norme yu muy doxee. surtout waaw parce que dama li ma xam laa wax waxuma ko lu ma xamul sama mbokk ko xamoon sax nga nëbbal non non li ma li ma xam war ko koo nëbbal bu àggoon tey ñu téye ko fa wala leneen xew ca it ñu ne doyadil lañ doomu xalifa ba wala nangam caméra ay réseaux sociaux yéen da ngeen a doy waar. jël loolu tasaare ko bu ndu kër Ousmane lañ ko toroxalee wala lañ defee nangam parce que en xamuñ ko moom man lañ xam. kon lu moo lu mu yàlla sax daf ne lu lu mu jaara ci buntu ba. mais nga ni ko ah nga ni ko. Hmm. dinaa ko ko wax. Hmm. lu ma wax ma woo la wax la ko. waaw foofu lañ jëm si. dama ne ko boo fa yóbbee carte bi doo dugg ñu discuter mu ne ma léegi noo xalaatee ma ne ko man de sama xelu bopp actuellement sax Ousmane nekku fi mi ngi sëñ soor moment yooyee ma ne ko ba si kanam si biir wax ji ma ne ko astafurlah may ma ma oo jibi may ma tuuti man ma oo jibi jotuma ko ma bàyyi ma ma am ko ma bàyyi message directement mu toogee ba ay trois heures demi quatre heures kooku tontu ma na ma d'accord mën nga koo mën nga mën nga koo mën mën nga koo photo ñu yónnee ma ko danaa ci jot ma photo mbir ma ma oo alaaji taawu xalifa bi leeralal ko lii xew li ma li ma li ma président wax ma wax ko directement na ko nee na d'accord dafay dafay dafay dafay kontaan ci xew-xewu diine yu mel nii sax ñu invité ko ci te buñ ko ci invité wutoon mu yëg ko comme citoyen réew mi yëpp nu ñuy ootee mu yëg ko dafa war a ñëw ci bés bi dana ñëw mu ne ma mais si boppam ne ma vocal yaa fi message yaa fi lépp dinaa ko joxe nit ñu xool ko parce que dëgg ci lañ toll alaaji ci boppam ne ma léegi tey la dimanche liggéeyuma te cachet xalifa bi mooy taawam nest te cachet xalifa bi mu ngi sama bureau kese xalifa bi mi ngi sama bureau ma ne ko d'accord léegi kañ nañu def mu ne mu suba ci lënd bi danaa defar lettre bi def ko ci turu Ousmane Sonko adressé ko ko comme ni ma ko defee yeneen leader yëpp kase ko yónnee la ko nga yónnee ko ko mu kase ko yónnee ma ko PDF ma yónnee ko Ousmane Sonko ñu toog dans une semaine deux semaines Ousmane répondre ma ne ma ne ma c'est confirmé que dinaa ñëw parce que sama agenda dafa fees mais yaakaar naa du ma mën a ñëw ci samedi bi. ndax li tax duma mëna ñëw ci samedi bi moy dafa am sama mbokk ganjol ganjol yuma joxante ak rendez-vous ba pare te kale naa ko te it bëgguma sama wax di téggé ko té ñooñu ñu may xaar té depuis 2 mois comme depuis 1 mois lañ lañ doon sàkk pour dajé ak man ma ko mam khalifa ziyara bi ñett fan la ko daan def al khamis aljuma samedi ñett fan yooyu mu ko daan def nak bis boko ci tan rek jappal bis bobu mam khalifa tan bis boobu mu ne ma kon tan na aljuma mu ne ma d'accord légui da danañ waxtaan ñew gi nu muy demee bi mu desee trois jours ñi ngi ñi ngi ci samedi tey bi mu bi ñu desee jeudi laa toog euh, vers dix huit heures dix bi ma julee tàkku sam par tey sama course ma gis appel am moom président Ousmane ma ne ko uhum uhum mu ne ma wax sëñ Cheikh da ngay wér boo paree nga owaat ma ma ne ko d' accord ma pare rappelé ko bi ma ko rappelé ñu ñu ñu am luñ discuté mu ne ma léegi c' est confirmé dinaa ñëw àjjuma parce que actuellement nii sax maa ngi Ziguinchor nekkuma dakaar te bés bi rek moo may jaral dagge vol ñëw ci àjjuma bi ñëw ci ñëw ci ñëw ci bés bi. parce que yow say mbir wax dëgg ne yàlla kenn du ko neenal rawatina nag sa bésu maam mi nga xam ne am na lu mu soutenir Sénégal wallahi nii la ma ko waxee. Mhm. am na lu mu soutenir Sénégal war waxuma laa Sidi Lamine mi nga xam ne ñu ngi ko denc foofu ndax sama kóllëre la goo xam ne nii. alquran def ne wa awfu bil ahdi innal ahda kaana masuulan bu ngeen di fonk fonk leen kóllëre goo xam ne da ngeen di jëli da ngeen di jël yàlla def seede muy seen diggante kóllëre googu ëllëg ku war yàlla nga war kon Sidi Lamine sama diggante moom yàlla laa ci tegoon waaye sama maam Khalifa Niass miit maanaam maa ngi liir ay mbindam waaye ku ku maanaam ku ku bañoon ku bañoon nooteel laag yu mel noonu ñu discuté ci yu bëri mu léegi mu des ci heure ñëw bi heure ñëw bi ñoom maanaam liñ def dañoo yëg ne ñun def nañ loole ba pare ñu bëgg am atu bëgg woon sénégalais yi ne non Ousmane lee tax julli suuf ñoom dañoo mën a tere julli ji jumaa ji amul mbindeef mu fi mën a te moom alxaaji Niass taawu xalifa bi mhm. bi def annonce boobu bind ko ci kase bi mhm. ne Ousmane bu mu si fii moom ak ñi mu ànd ak yaa ngi dégg amuñ ku kuy tere bu Ousmane bëggoon a julli si jumaa ji billaahi wala taala ñoom ñu takk leen yeew leen ñun seen yi génne leen génne leen ci jumaa ji Ousmane jullee moo gën a yomb ñoom ñu ñu ne Ousmane du jullee ci jumaa ji mu àndal Cheikh da nga jàpp ne dafa am ñoo xam ne peut-être ci nguur gi lañ nekk ñoo koy soutenir wala ñoo ko may doole gi moo am foofu laa jëm mhm. foofu laa jëm bu yàggut waxoon naa fa ne ci benn plateau laa toogoon ne am na ministre de l'intérieur kër sëriñ si li ci ëpp doomu xalifa yi la ànd ak waxoon naa ko bu yàggut ci te boobu li xew agut ba ma ko waxee léegi ñu toog tuuti ñu gis ñenn ci njaboot gi ñu gis ñu génn ay photo yoo xam ne àndoon nañ

Ousmane départ ñëw ci jour bi mu war a départ pour ñëw yabaate ak ñàkk respect ki nga yónni ak ñàkk respect ki ngay ki nga invité weesuwul loolu yow nga dem defaat urgent ci jour ajuma bi beneen beneen communiqué buy wane ne ñun nangam nangam lew nañu seen dafa am lu ñuy wax comité organisation ñu teg ko ci loxo alaaji mu ndaw muy doomu alaaji Ibrahima depuis trent ans wala lu ko ëpp mooy liggéey ci mooy liggéey ci bâche bi actuellement xalif bi toog fii alaaji Ibrahima Niass mi fi génn mi mi génn àdduna kii toog fi doomam yi ñooy def ak ak ñun ñii nekk la nañu seen ñoo joju sawante tant bii ngeen gis guddi ñu war faa toog di yéegale ko wàcc suñu dërëm ak suñu ñaar fukk dugg ci njabootam googee tey taxaw di wax bañ taxawee tey amul law nañu seen lum lu muy soxla ñu gis ko ca lu du lan ziyaare wala gàmm wala foo xam ne xalifa bi war na faa dem dara war faa génnee désormais loolu dafa doy dafa doy ñun ndaw ñii Khalifa Niass moo ñu gënal suñ ndey moo ñu gënal suñ baay moo ñu gënal luñ mën a am tey ak luñ mën a am ëllëg kat ak politique politique mooy lan politique du dara waaye nag dara la ci boo ko xamee mooy lan moo mooy nga xam sa xam yaay kan xam li ngay jar ki la may tey 2024 du la ki nga ki ngay bëgg a xañ tey 2024 amaana amaana fàttalikul bés ba ko ba naan ko ba ngay bind annonce naan du julli si. pourquoi politique politique nar leen a jaxase. politique naruñ ñoo jaxase.

pourquoi jëlo ko mercredi pourquoi jëlo ko nangam nga jël ko deux semaines te waxtaanoo ci kër ci famille bi yow taw khalifa bi rek ya def lool ci sa responsabilité ba para tamp ci kasse khalifa bi au lieu ko nga waxtaan ceeg seex seen seex mi nga joxone invitation bobu sax au moins mais nga jël ko publier ko ci internet kon lo ci bëgg lan nga ci bëgg non sais pas. man mënumaa tuutal yàlla yëkkati na ma maa pas gën a tekki fii ñu seen dara moom kenn xamu ko ah, doomu kilifa taxuta doon kilifa ah, fii boo tàppee woon turam fi ci internet ne sais ma doon doo gis xamoo parce que maamam ak ko foofu liggéeyul maamam loolu ñun ñun suñ maam lañ liggéeyal lii tey bés bii amul ku sant ñes nekk lew lañu lu ñu ci génne nga ne génne naa génne naa boo loo ne génne naa ko def ci rek ñu ne la def nañ def nañ ci lu ko raw yéen ñii tey ñëw fii maa leen tax déplacé wu ñëw journaliste yi lu tax Khalifa Niass moo ko ëpp ci ñun mais nag yow boo waree jël benn mbir di ko def dissocié ak comité organisation sans sañ seex sax dafa am lu wax comité organisation ñoy organiser mbooleem lu xew ñu lew nañu seen ño tante tante bi ño def ño ño defar lépp te dërëmu état dugul si ñom comité organisation boobu alaaji ñess jidi ko di doomu alaaji Ibrahima ñess ñun ñuy corriger chaque wer comité boobu noonu lu lew na soxla ñun ñoy jug diko def problème bu am ñoy jug diko ko lijjanti léegi daal yi nooy imaginer ko xamne ya ko jox invitation mu jox ko Ousmane yow nga baye ba jour bi yow yow nga def li ngay def ba para dem ci kilifa gi gaaw ruuma na ko jël buntu tejj ko loolu doyut fa laay fa laay leeral si loolu doyut Ousmane man bi loolu amee dix heures et demi souvent que dix heures euh, vingt sept ou ou et demi daal diggante boobu. man may may nekkul xalifa yi toog ci buntu jumaa ji ñu daan jógee Ndakaaru def ko kilifa te kilifa lañ koy mas a def te du mas a dëñ. te du mas a dëñ te képp ku ko tuutal tey lañ gën a wax wax jooju képp ku ko tuutal billaahi wallaahi wa taalaa ñu jaare suñu bakkan ak koo mën a doon képp ku ko tuutal ñu jaare suñu bakkan mais bi li lépp amee idaali خلف بيجي بابم ووته نزيارة بي دكو دكو بغا ديف وايي نك امنا نيو اندك موم امنا نيو انتك موم نون غيسه وقتان بي مو ميتي وون لول نك وايي دغ من دوله اي برومي دوله اي برومي خلاد يو جوب لول يو خامني سين خليفه كنتو ويس نكو نيتي اوب تاخاو نكو سيرن بي اتارو دال دون خيخ موم باخال باخال بي ني واخه كروك تيري تا واخ جا من بوكرا تي نديك ديل كادو dama ne mam mune na mané ko ben kàddu ben kàddu le kilifa am su ko perte kàddu mbaa nu tukki moy man maa dana def te defuma mané ko lolou du am bam naw suñ bakkan yi de dénk dénku nañ ko suñ njaboot wax nañ len liñ am ba pare bu état bëgg ñak amal ziaré bi, na jaar ci ndaw law nañu seen yëpp nak luñ ci gobé rek nañ ko gar parce que yenn yi nag tura sa tura ndax état li mu bëgg a def nii li laa wax de état li mu bëgg a def nii ba tëj këru diine yi tëj jumaa yi mooy wane ne sëriñ si duñ dara ñiñ bëgg a jox ay carte ñi ngi leen koy jox te tekkiwuñ dara ci dëkk bi ñu dox par guddi di circulé ci réew mi yéen sëriñ si kenn mënta génn ku génn bëgg a jënd meew ñu jàppale te dañ leen a bëgg wane ne leen seen gàmm yeeg seen ziyaare dara réglé wu daraay réew mi parce que corona ngi fi te jógewu fi te li tax jógewu fi mooy dañoo nanguwul ngeen bàyyi seen ba pare ne ko na newaat si réunion bi yabaate weesuwul ñu ne day leen dox bëccëg bu leen dox guddi kon feebar bi guddi lay dox guddi feebar bi guddi lay dox du dox bëccëg dawal leen seen xel yi yàlla ba muy wax yaa ulil albaab la wax borom xel yi kon dawal leen seen xel yi ngeen xam ne ñii ku ñuy ku ñu këli këlee la ñuy war bu leen bokk ci ñooñu bi lii amee nag ñu war a dressé li ñu war a waxtaanee yëpp teg kenn ca ñooñee muy démb ki def déclaration bi sëñ Daara Ahmad Niass ànd ak ñun loolu ca lañ wax ñu jógee fa dem seeti Mouhamed Ibrahim mi nga xam ne mooy imam deuxième imam ratib bu lew nañu seen mu ànd ak ñoom moom ci luñ wax ñu dem seeti Ahmed Babacar mu ànd ak ñun moom loolu ci la xalifa bi wax ñu dem seeti as xalifa mu ànd ak ñun ci lu xalifa bi wax ñu dem seeti mboolem mag ñi nekk ci kër gi yëpp ñu ànd ci li xalifa bi wax ñu ne xalifa bi li mu wax mooy dëgg nañ ko def ñu xeex loolee ba siyaare bi am tey waaw ku xeex loolee ba ngir sa ngir sa baay ba mu teggeeku yow nga ñëw tey bëgg a teggi sa waxu baay encore forcé na sa waxu baay na teggeeku sa waxu baay mooy lan mooy kase sa baay moo invité nit ñu di ñu tamponné dóor kase na ko damaa bëgg nga ñëw koo ko départ di pour ñëw nga bëgg a teggiwaat sa waxu baay publier loo xam ne sa baay yëgu ñun yëguñ kase ko ngir ngir poñetum àdduna loolu duñ ko nangu léegi nag bi lii lépp amee ñu recevoir këru diine goo ñu recevoir astafurlah politicien boo xam ne bi ziare bi bi ñu waxee ne ziare boobu day am da doon dox ci këru mag ñi li may wax ñu seen ñu ngi fi di joxe ay enveloppe. kan la Ousmane Noël wala. boo tuddee tur rek ma ñëw. yaa ngi dégg kookee bi Ousmane Sonko demee am na ko xalif bi recevoir. mais tuddee turam kooka Mbaye man kilifa laa. voilà maa ko maa leb. bi loolu amee kookee doon dem ci këru mag ñi ñenn ñi di leen jox enveloppe. naan leen damaa bëgg waxu kalifa bi daal moom ñu teggi ko fële cest dire maanaam dara jaru ko état dafa am doole waaw ngeen xool xalifa bi nu ngeen koy nangamee. ba moom moomee jël dix million ñëw jox ko xalifa bi ne ko damaa bëgg nga rectifier sa wax ji yaa ngi dégg nangam nangam nangam xalifa bi ne ko yow da nga maa yëpp yow bu doon kër ga nga jóg kilifa googee dana wax nga taxaw dem jo ñeme koo jox cent millions ne ko rectifier sa wax ji waxuma la nga ñëw dama jox dix millions. man nekkoon vingt soxla du fanaan yow da nga maa yëpp wala na ngeen a yaakaar ne xaa suñ bés bu mu ñu ngeen xaalis gënal kër gi waa tey jamono tourné waat ba ko bañ nangoo recevoir kooka nangoo ñëw recevoir Ousmane Sonko lu xew lu xew politiciens yi nga xam ne ñëpp xam nañ ne événement ba événement nga leen di gis Kaolack événement ba événement nga leen di gis ñeseen ren lu waay sant ku sant ñes lekk alalu nguur na sante Ousmane Sonko ku sant ñes nekk lew na ñeseen ala lu nguur nako santé Ousmane Sonko li tax ñetti point yi fa lay tejé ñu gudd mais njëriñ la. mais solo point yi may léral moy ziar musu am. lampe yi ngeen gis léré ni ci cour lew nañu sen sama sama rak Moustapha Niass day politique APR la far man ma and ak Ousmane Sonko ñooy bok bol bi ñu